Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay nañu bis bi nu jëm di bisu euh, yonent bi itam fas yéene nañu képp ku ngàbb sa xaalis li dale ci trente mille ba ci cinq cent mille soo ñëwee danga am xar daañ la ko weefal mboolem ñuy jaay xar ci dëkk ci marché bi it wax naa leen ne leen liggéey day day jar sellal ah nit ki bu ñëwee soxla sam xar-xar mi bu amee benn defo bala ko commencé waxaale nee ko défaut sangam am na soo ko waxuti ba mu jënd ko bu ci amee lu mu naqari bu di koy fii des koy tiri. tubaarkàlla xar bu waay bëgg rek boo ñëwee fii da ko am xar yaa ngi nii du jeex boo li tàmbalee ci ay trente mille ba deux cent ba cent fa sa doole yem rek boo ñëwee nag boo ñëwee su yàlla daañu la jàppale nga am xar bi nga bëgg. maanaam njëgu dund beeg ak ak ndox meeg yeneen yi ngeen nu ngeen ko dundee. ak ndox mi wax dëgg yàlla tubaarkàlla xanaa ñaan sa borom dolli ko rek ndax ndox mi léeg-léeg bu jur gi bare dëgg dëgg dëgg léeg-léeg mu manqué euh, ripaas bi nag xam nga moom seer na lool ak ngooñ waaye nag lépp noo ko teg ci euh, liggéey bi rek xam nga. xar njëgu ngooñ fu mu toll instant njëgu ngooñ fii ne instant bi gën gaa kii ma ma ngi toll ay 4000 euh, ripaas bi. saako yi taxagul mu wàcc lool ndax kiita bi ñu ngi ko jënd ay neuf mille sept cent neuf mille huit cent élément bi ay 9000 loolu kon taxul maanaam xont bi yomb. bu ne njëgam quoi parce que xar yu jóg ay qualité qualité la waaw xar bu ne ak njëgam waaw am na yu cher am na yu yomb mais fii daal ku fi ñëw di am xéwal daal bu soobee yàlla incha allah. xar boo yor njëgam boo ñëwee da nga am li yées daal mooy leen nga dikk fekk xar xar bu jar 300 nga nga yor nga yor fanweer a am waaw xar boo yoree 5 xar bu ne ak prime. mën nga am cinquante mille mën nga am bu cinquante mille mën am trois ans mën nga am xaru trois ans. Ah, nu bëgg daal képp ku fi liggéey ku ne nga def liggéey bu jub bu ko defee daan liggéey daan am dara tey dana barkeel waaye su bu ma sañoon daal kenn du fi nax kenn lu fi waaye di jaay lu ne daal nanga seet lay yoon nga jaay ko tegaay lu rëy nag dana dana dana dana dana waral ah, ah, xaalis bu barkeel di. ndax nit ki moom ganaaw xar mi da koy yóbbu ci njabootam rendi ko ah jox ko njabootam ngir ngir bisu yonent bi yow mi ko koy jaay war nga koo sell ndax boo ko sellalee la nga cee amas ko néew mën naa barkeel soo ko jaayee mu mu yóbbu ci njabootam dem xolam seddu guy soo ëllëgee da nga ko am waaye boo ko jaayee mu yóbbu ci njabootam eh, xolam tàng ca bu beneen doo ko am te it ku la tudd ku moo daa am am keneen ndax fu mu la fu mu fekk ñu di la tudd mu ne leen kooku eh, warkat la. nit ku baax daal day liggéey liggéey bu rafet su ma sañoon daal nun ñu fi daje di liggéey nga xam ne dañoo dañuy loo xam ne da ngeen ko dañ ko yore sun sunu njaboot ak addiye jun yor sëriñ bi lépp daa jar sell waaw nan góor góorgóorlu daal fexe liggéey bi sell ku fi dikk daal bu bu bul am wenn naqar képp koo xamante ne nag da nga ñëw ngir euh, euh, euh, ma fi yaa xaalisu jàmbur yàlla na yalla na la yàlla wum ci doole waaw ñoo ngi jaay di gis bopp parce que ak des fois nga ñamee client waaw ah, clients yi mag instant bi Touba dafa noo xam jënd mi du gaaw a teel noonu mais ñu ngi jaay waaw ah, vraiment moom sécurité bi ñu ko dund sécurité parce que gis ñu kenn ku fi xam si dara dem fi manqué daal parce que am nay gardien tamit am na sécurité vraiment ñu sant bu baax daal vraiment te yàlla jëm kanam oui. dëgg yàlla moom fii ñu nekk muy ndindi sëñ Fallou di daral bi wax dëgg yàlla sëñ bi defal nañ ci tawféex joo xam ne wax dëgg yàlla ndox mi ñaari forage yi nga xam ne ñooñu seeq diggante Touba Ndigal ak Ndindi ndox mi doy na macha allah problème xont bi nag mu mel ne ngooñ mi rek moom lañ am jafe-jafe muy ren saaku ngooñ mi ngi àgg ci 5000 ak 4500 wax dëgg yàlla bu sañoon tamit ngooñ mi nekk ay 3000 wala sax lu ko yées ndax wax wax dëgg yàlla ren nawet bi dafa dafa kiiwut dafa xaw a tardé te eh, eh, xar yi ren frais bi tamit dafa xaw a metti kon it bëgg nañ encore Ah, ñi fi nga xam ne ñi ngi denc lu mel ne ngooñ depp ko ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla war nañ ñoo mën a indil ay prix yu xéewalee wax dëgg yàlla ndax tamit dëkk bi képp ku fi nekke jàpp nañ ne sëñ Tuubaa ngay liggéeyal kon ñun danañ fexe ba ñun ñi nga xam ne ñooy jaay xar yi dañ fexe ba fii képp koo xam ne ñëw nga fi loo mën a yor rek incha allah danañ la jaay ci xar ci njëg gu mucc ayib sa xol dana seet daal incha allah. fii moom ñaari xaru naare duñu fi bëri xaru jolof yi ñoo fi ëpp ak xaru yeew yi waaw ah, fii daal mooy daral bi gën a mag ci biir Touba mooy ëpp jur ñaare boo fi ñëwee da nga fi am jur loo ci soxla da ko am lu tolloo sa poos ne daal da ko ci am. ne moom moom euh, séeragul noonu ndax par rapport boo xoolee ak daaw euh, ren la tane ndax heure bi daaw ñun ñu ngi jënd saako ngooñ dix mille ren nag nawet bi yéex na waaye ñu ngi jënd saako ngooñ ay quatre mille cinq cent cinq mille ripaas bi daaw la gën a jafe ci ren. waaye lépp ñu ngi ciy sant euh, monsieur sama Ndiobène Ka ministre de l'élevage def na ci effort bu rëy ay démarches yu mag yoo xam ni bëgg na bépp sénégalais bu ne rek.